jërë ngeen jëf yéen sunu mbokk nat bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk sa wàccuwaay mamat li di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral di def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir sit bi rek saa su nekk damay bëgg ñu yaatal ci xam-xam ngir ñi ñuy topp saa su nekk mën cee jële lii di njëriñ lu kawe seen njort aca sëriñ Modou Ndiaye mu sëñ Saliou nag doonatu ku ñuy présenté ti ndax xam nañ ko ci biir milieu médiatique bi ci diggante ñaan ak paj saa su nekk mu ci def résultat bu ñu bëri di koy seede ci biir réew meek bitim réew te nag dinañu waxtaan ci xam-xam waaye duñ fa jógee dinañu waxtaan ci xew-xew jamono ndax daam loo xam ne gis na ko lu yéeme ci rawatina ñi nga xam ne saa su nekk dañoo tawat ñu leen di wooye ñu feebar waaye am na lu mu gis it ci làmb ji dox ci diggante Siteu Modou Lo ba ci kuje langue politique bi dañ ci yaatal bu baax a baax ñi màggale saa su nekk du deñ di leen di ñaanal ndax saa su nekk lu mu ci gis dina ko wax waaye dina leen ci xel di may lii di ay ñaan sëñ Modou damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bisimilah. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh xanaa delloo di di la fay nuyoo di nuyu mbooleem àdduna ñi ñuy sifir fu waaye mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew. du ànd ak ñun fii ci 221 people ci jotaayu xam mhm. ak faj nag ak ñaan yàlla. barkallah ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. waaye mën a nekk di dégg suñu kàddu incha allah. macha allah. jërëjëf sëñ Modou njaay mu sëñ Saliou ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw sën yooyu seet yooyu tànt dal ñu ci kontaan bu baax acca comme ni ma koy defee saa su nekk ñu fas yéene koo wér ci xam-xam yaatal seet bu leer bi fii la ko ñëpp xamee borom seetu ramle bi xam nañ la ci bu baax a baax ci laa bëgg ñu dellusiwaat nga ngam ñoo xam ne di nga leen ci laay biire bu baax. seex seet moom dama li ma la dellu di maa la ko wax. Mm-hmm. ci sama loxo la ne. loolu la yàlla dogal Mhm. ci sama loxo la ne seet. Mhm. Mhm. ndax nee naa la fi yor naa ci yu bari. waaw waaye li yàlla dogal muy toj dëkk bi muy seetu ramlu bi. waaw ramlu moom suñu borom dogal na man maa ci toog. wala dafa leer de. ndax xam nga. ramlu yomb na hmm. seet ne damay ramlu ku ne damay ramlu yombu na. waaw waaye ramlu moom dangay xam li ramlu attan. waaw li tax a jóg ramlu. nga doog caa mën a toog setantal ca man ngaa ramlu ba doom yëpp génn waaye pour li doom yi wax nooy ba xam ko maa la ko wax de lu wér képp ku dégg li may wax te xam ramlu mhm. dana xam bu baax li may ngaa ramlu ba doo ba sakku lu yëpp génn waaye pour mhm. la ngay wax a tax nga xam ne doom la lu ba doom yi rek génn waaye seex seet gu mhm. ci ramlu bii doomu aadama bu nekk nit ku nekk buy dox war naa dox ba mu yàgg mën a tekk xool mbiram wala ndeysaan boo amee ay gàllankoor. waaw boo jaaree ci seet gu leer dalay wax ne la nii ak nii nga war a def. Mhm. boo nekkee ci aw yoon waa am ay gàllankoor da lay wax nii ak nii la war a def. say mbir bu taxawee danaan seet gi naan la lii ak lii ngay def. lu nga topp mbir di ko lijjanti mu dëgër loo gis lu ne am na lu ko waral. Mhm. te amut genn ñaan gu sunu borom di di gàntal. waaw ñaan gii dana gën ci yow. mu defal la ko nga ñaan du gën ci yow. Mhm. mu rombale loola waaye leneen la la ciy fanqal maa ko wax baa mu defal la ci leen waaye suñu borom moo rëbb ki xëy suba ba ngoon te ñaanu ko ngir mu may la lu wér nga wax waaw moo sàkku ñu di ko ñaan ndax li mm-hmm. yàlla moom waaw bépp jullit bu ci wéeru ci ñaan yàlla amut ñaan mu de ko gàntal mm-hmm. nit nag dana ñaan lu gënut ci moom lu loola nag mën ngaa dem ci sëriñ sax mu ñaanal la gisoo ko nga ne nangam loola gënut ci yow wallaay ndeysaan bu gënoon ci yow suñu borom da waaye nag mën ngaa ñaan lii gënut ci yow waaye leneen la lay indil waaw waaw suñu borom du gànt <laughs> waaw la ci dolli ko nag mooy hmm. lay tax nga mën a xam ci sa avenir dara waaw say gàllankoor ak li tee say mbir dox wala hmm. li lay yàqal hmm. wala la nga bëgg a dugg loola seet moo ci bunt ndax seet day bunt ñaan mooy génn lépp day buntu ñaan daa day indi ci sa avenir lu bari man nag suñu borom dogal na moom ku sa adduna nga am lu ku am lu lënt ci sa adduna boo wooyee seen mun njaay borom seet gu leer gi ci ramlo bi waaw yow yow yow yow sa aajo faju na dana la seetal wax la sa avenir macha allah li nga dund ba romb ko mhm. ak fii nga toll ak li ci sa te ñëwagul mhm. lépp lu la rëcc na la gànn sarax ba la lay wax lépp lu tagal sa mbir mhm. sarax ba la lay wax lépp loo dugg bëgg ca am ndam moo wax la sarax ba bu aaja ñaan moo wax la ko ci kàttanu yàlla waaye seex waaw seet gu leer li ci ramlu bi waaw ramlu bu baax bi yor seet gu leer gi sëñ mun njaay moom sëñ saaliw moo ko yor fii ku fi ñëw ci seet ma lijjanti sa mbir ci kàttanu yàlla macha allah incha allah jërëjëf wax laa ne la ki koy jéem mhm. ak ki koy mën doonoo neex waaye boo sukkee fii ma wax la nit musta wax ci seet barke alxuraan jaajëf waay jërëjëf sëñ Modou jërëjëf aca mu ngi noonu kon numéro lañ affiché mu leer ci suufu barre d'écran bi soo ko wooyee dina jëflante ak yow ba sa xol sedd guy dañu ñëw ci sunguf yi donte ay njëriñ a ngi ci sunguf yi nag xam naa saa su nekk dama naan ñàkk koo ma suurut parce sunguf ci li muy dox ci njariñ moo bëri bisimilah. seex. Mm-hmm. ñun moom wàllu sunguf. waaw gëstoo turu yàlla. Mm-hmm. gëstu ilmu ismullaahil ahsam mm-hmm. muy turu yàlla. waaw gëstu xilmul xuróof. waaw gëstu xilmu xawaatim. nii la ñu gëstoo sunguf. walaay ndeysaan lu wér. waaw ndax benn mënu coo dem bàyyi sa moroom waaw ndax wax yàlla jëf yàlla turu yàlla. ñoo boole foofu ñun nag amuñu sunguf yenn ñu ñu dem naan jaay ma sunguf yi baa sunguf bii waaw maa la ko wax de lu wér lépp luy liggéey ci wàllu sunguf ay topp la ñooy taal suñu oto dem ca àll ba lu wér ut ko nañ ko war a utee mhm. ak yi ci am heure nañ ko war a utee mhm. lépp luy dox ci kaaraange waaw luy dox ci ubbi mhm. luy dox ci dindi lépp ñun ñoo koy utal suñu bopp waaw waaw lu wér ba ci bayre wasosor gi nga xam ne boo compee mu dem waxtu wañ koy wut ak heure ba ak la muy àndal lépp ñoo koy wutal suñu bopp seex xam-xam bu yàlla dogalee nga di ci yëngu da ngay fexe ba fu ne nga bàyyi fa sobe ngir xam lu bari waaw ndax boo fëggee bunt bi mu xaw diib mhm. am na feneen foo war a mën a man seex lu ma la liggéeyal am naa lu ko gën a jan waaw da ngay waaye da ngay ki ba xam mbiram disaayam fu mu toll nga xool bu dee ci li dugg doomu bu dee ca gëb la ga waaye lu mu ci mën a doon aajo bi moom boo dikkee ci kàttanu yàlla waaw buñ ko xoolee ba am ci lu leer mhm. buñ ne laa mën nañ ci dara bu yëba nga tëdd nelaw ndax ñun duñ waaye duñ dugg it ci luñ mënut balaa boo nañu nangam naa bëgg nga ñaan dañuy xool ba man ba xam mën nañ ci dara waaw wala ñu dugg lu mu doon buñ ci mënee dara danañ la wax ne la mën dara te ba yow boo tëddee nga nelaw moo tax ma ne xeeti sunguf ci mhm. wàllu kaaraange waaw ak ubbiku mhm. ak bayre ak ci wàllu xaalis mhm. yépp saa def na ko beneen bi ci doole ko mooy ci wàllu faj hémorroïde bi génn bay doon picc waaw boo ma wooyee ma saafara ko ci kàttanu yàlla ko bu dee ndoxum siti mm. génn bay am ay góom ngay okkutu ay ër boo ñëwee saafara si am na fi ci kàttanu yàlla bu dee da ngaa néew kattan ci mm-hmm. wàllu sëy ba boo nee pépp àgg mm-hmm. boo ñëwee moom boobu moom dañu koy consulter ndax rab sax mën na ko def mm-hmm. consultation lañ koy def ba bu ci liggéey de sax ñu jox la looy sango looy suuroo lu wér jox la garab yi mu dem waaye seex samay garab kattan waaw ay doom de ay xam nañ ko de waaw du ay doom de wallaay ndeysaan garab yoo xam ne nag ay doom la ñuy def ba di ci def. waaye fii moom lépp. Mhm. meññeef la. gàncax la gu ñuy lekk. lu wér ci kàttanu yàlla. doomu aadama lu muy def ci biiram da koo a xam. waaw lu wér la da ngay jaar fañ war a fañ war a jaar. Mhm. bu dee loo war a lekk dañ la koy dañ la koy wax nga lekk ko bu dee lu la koo segloo dañ la koy segloo. Mhm. ndax biir lu ci dugg da nga a xam. moo tax liggéey garab moom. dansé bi ci nekk kenn xamu ñi ko xam bëriwul nit wërta liggéey garab te xamu ko. wala ñoo xam ne dañuy naan naan duñ dara leneen la leen di yokk ndeysaan waaw waaye daal ci kàttanu yàlla mhm. xeeti garab moom waaw ni ñu xamee xam-xamu asrar dinañ mhm. ko jàng ba xam ci lu bari loo xam ne lu ñu ci toog wax mhm. lu xam la wala ndeysaan te lu ñuy jóg di jël suñu oto di ko taal di ko uti ngir yaakaar yi doomu aadama yi am ci ñun moo ne ci ñun te loolu la ñuy doxal ci kàttanu yàlla waaye yii daal kum dal macha allah suñu ñu ko ci kàttanu yàlla macha allah aca dañu dugg ci rab rab it bëgg nañ nga baaxee ñu euh, li mu mën a yàqal nit ki ndax lu jóg rek nit ñi jiiñ ko rab mu ngi dof raba raba ko ko def. seex rab li mu dugg mu dëgër raba ko def. rab li muy def bari na. waaw. xëy di tëdd ko jóg yow. Mhm. pour nga dem uti dara sax da lay të. walaay ndeysaan. rab mën na koo def. waaw. wala sa yaakaar ji fu ñu ne la nangam tey di la di nga dem sol saw daal dem ba yegg mu échec nga ñëwaat tëdd. waaw rab da koy def. lu da nga doon jigéen. Mhm. bëgg am borom kër ku ñëw wax dem. rab da koy def. cee da nga doon góor. Mhm. bëgg jabar foo dem ñu daax la rab da koy def. walaay ndeysaan. da nga doon góor di fooye sa awra mhm. rab da koy def lu wér nga wax da nga doon jigéen mhm. mu di la xiirtal ci mooy yàlla nga xam ne yow fu la góor fekk nga ne ko bismillah rab da koy def yaa ngi dégg rab li muy def dafa doy waar da am ba borom kër di sëy waaw bu sa mandi wu ñëwee balaa ak rab lakk ko rab mhm. da koy def cay rab góor tamit rab day lakk mandi yoom ba mu oyof ba bu doon sëy cent du am doom yëpp nag bala nga koo mën a xam consultation ci consultation bu leer rek ngay mën a jaar mhm. seex seet gu leer ku ko amut mënoo ñaanal kenn gis mu gis wax ndax bala ngaa kii li ko gàllankoor foofu ko jar bu ba xam li ko téye wallaay nag loolu li koy waral mooy mhm. jar bu rek waaye bu fekkee ne kii daa ñëw ne damaa néew kàttan nga dem jox ko ay garab rek waaw ay garab mën naa bañ a décanter situation bi la koy téye mën naa doon ci biir faaw da nga koy consulter xam ko moo tax seet gu leer lu la lu ko waaye mën a jënde da koo jar seet gi lay teqantal kii feebar bi lii lan la wala lii ko dal nii la mm-hmm. waaye sarax ba waaw réew mi dugg nga ci sarax ci sama loxo la toog mu ca laa doon dugg waaw mm-hmm. ndax xam nga di tax seex waaw sarax moom lu mu ci doomu aadama amul waaw daa mel ne njëriñam bëri na de sëñ bi sarax mm-hmm. adduna. waaw nit ñi buñ xamoon ci li ci sarax. waaw problème yi mën naa jeex. ndax boo xamee la nga war a def xool ku la doy mu di la teg ci yoon. waaw balaa jafe-jafe am boo saraxee mu fanqu de. bismillah ak dee sax mën na ko fanq waaye da koy xam. walaay ndeysaan. waaye toog nii rek. toog une semaine wala toog weer te saraxewoo. Hmm. loolu erreur la. doomu aadama bu nekk. lu wér war naa mën a xam. Hmm. lim war a saraxe. war a xam bésu saraxam. lu wér nga wax lu solo. war a xam heure ba. cëy ndax loolu day jàppandal mbir mën ngaa jóg bu rasol sa dàll mhm. am na tarax yu jàppandal ay mbir am na yu fànq ay jafe-jafe waaw boo ko xamee nag doo sonn mhm. bu heure ba jotee waaw na nga cey jaare saa borom mën naa jàppandal lépp waaye booy tañax-tañax yi dem waaw nga war a saraxe soow ñu ne la béy ngay ray da nga yokk sa bopp ay problème moo tax adduna lu waaye du dugg la koy xam lu mii nag di métier ñaan yàlla lu ko gën a dansé ci adduna amut bari na ci ñuy dugg ci ay guuta ñu xamut ñoo leen koy teg waaw ndax dangaa war lu bari boo complété wul lépp it waaw li nga war a dese lu néew lay doon a a mhm. a moo tax nag fexe ba xam bu mhm. jàng jotee nga jóg jàng doo ko woon nit ñi ba dara ne daa bokk ci li am solo ci wàllu ñaan mhm, waaw loolu mooy li ci nekk waaye gis nga ma leeral la ci mel ni seex sarax barke alquranul karim billahi illasi la ilaha illa huwa bari na ay kilifa yu may liggéeyal ci yu aajo yu rëy xam ne mhm. ca sarax ba lañ jaar mu décanté wu man maa wax lii waaye nag seet gu leer gi koy wan tarkalla li koy waral nag mooy boo boo bëggee woon ñi da ngay fexe ba dara ne ci jot nga mhm. dem jàng ñëw yor lu wér toog li nga xam ne moo jafe gaañu muy résultat mhm. yow comme boo suur ci yow loolu nag saa borom def na ko fii macha allah ñun nag duñ ne kaay waaye ku nu woo fii seex daal ku mos da nga xam waaw fii daal mooy kër sëñ Modou Ndiaye moom sëñ Saliou tarkal xam-xam bu leer moo fi nekk mhm. turu yàlla waxi yàlla jëfi yàlla mhm. boole coog di wax digg ak suñu borom macha allah jox sa alal ngir ñu liggéey la ci kàttanu yàlla mhm. boo ne tekk boo jotee da ngay sant yàlla waaye ñun doonunu kuy dox ci am xel waaw kuy lijjanti teraanga ju saa borom di def lu wér mhm. waaw waaye daal lii daal bëgg naa nga xam ko seex waaw lu ci waaye am ci yii wax nii mhm. nga ñëw ñu jarbo ba ne la bismillah waaw ci kattanu yàlla bu ñu ci jëflante saa borom defal la ci ndam ci kattanu yàlla mu la fekk sa dëkk mu di Touba dalal la waaye man li ma gën a yéem comme ni nga ko waxee woon ci émission bi <laughs> gars yi bëgg nañ borom kër de tey li fi fekk ci mbooloo lépp pour am borom kër la rek. seex ñëwal ma ci affaire borom kër. xam nga ñu waxtaanee ko xam nga li tax ma jiitu si. non sëñ bi jafe na xam nga li tax ma jiitu si. waaw jóge naa Dakar ñëw fii. ndax dama sëñ Touba damaa jaral lu ne ma mm-hmm. te màggal gii lu ci waay jëf rek. ni ko waxee woon rek. lu ci waay jëf rek mu ngi koy wane de. lu mu gën a kawee bu déwénee nga gën ko mën la koo jëfle sa morom day fulu sëñ Saliou Mbacke suñu jàmbaar ja moo ko waxoon lu ci waay mane ren moromam rek man nag lépp lu ma war a def danaa ko def ci màggal gi ci ndigalal suñ Muntaxa mi nga xam ne mooy suñu sang bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaw ndax ak yàggam fi mm-hmm. suñu sag la bépp jullit nag ndax ñaw dong moo ko yor l'islam lu baax rek <laughs> waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax aw aw fanam gudd ak mboolem ñu bokkal sëñ Tuubaa ak gépp kilifa diina nag fu waaye mën a nekk ñu ngi ñaanal mhm. waaw waaye nag màggal gi moom li ma gis daal jëkkër jar na ko samay engagement man laa ci samay engagement man laa ci jël tarkal la ku sol saw dàll ba fekk ma fii Tuubaa waaw maa ngi ñaan suñu borom ci kat nu yàlla mhm. barke borom màggal gi mhm. aajo ji la fi indi muy borom kër boo ñëwee mu faju te jël naa sama engagement jiitu si naa bu yàgg moom kay fi mu ne mhm. bi ngir war a am borom kër la koy gàllankoor manas na ko bañ a xam am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di dëj da nekk fii ay kujje fii baa ay concurrence fii ñu dëj ko ba du am ah, jëkkër def la mhm. ko def def am na ñoo xam ne def def lay doon am na ñoo xam ne séq ak nit góor dem mu ne la dootoo dégg alxeer dem dëj la fa waaye lu mu ci mën a doon ñun bu ñu la consulté dañ koy dajj lu liñ lay jox dañuy dañ lay sa jëmm yow ba pare jox la loo xam ne moom gars yi nii la ñuy def wala ko wax boo taamu wut yow moom insha allahu rabbi balaa yaa boo fi nekkee taamu ba dàq waaji nag a ko fi teg sa tànk daal borom kër tax laa jóg mhm. la ci newoon ba tey ci consultation bi rek lañ lay laaj mhm. waaye ñaan nga la ci jëm gratuite lañ ko def addi suñ tubaa ci màggal gi waaye nag jëkkër moom li li yàlla dogal muy jafe dafa bari comme liñ leeral ci ponk yi rek li ko hmm. war a mënal bari na waaye fii moom lépp lu lënt doomu aadama ci lu mu mën a doon bu hmm. ko consulté danañ la wax lu doon sarax yam aaj danañ la ko bu aajee ñaan ñu la demal ci ku la mu ñaanal la boo ci jaaree saabaram defal la ci ndam waaye képp ku bëgg am jëkkër waaw nga bëgg hmm. am jabar mu tëla ba ku am doom bëgg a am doom doom ja a waaw ñu koosante la wax la say sarax nga dem mhm. ci kàttanu yàlla boo ñëwee fii ci màggal gi mhm. des na leen ko baaxee ngir jëmmi sëñ Tuubaa mhm. képp daal koo xamante ne bi alxeer dalaa të boo ñëwee saabaram dana tàggale ak moom ci kàttanu yàlla man jiitu si naa nag maa ngi Tuubaa a toggee ci màggal gi waaw waxuma nag toog fa nga toog naan damay woote ndax maa ngi Dakar man ko màggal si laa wax su <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ Modou Ndiaye mu sëñ Saliou jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo ah kay dina ñëwaat ci wàllum xalwatu doonte xam naa pour nga dugal ko nit di yomb waaye sa xalwatu moom <coughs> kooku dugal su génn rek bal bu tàkk lay doon sa yàlla dool dañ cee xam dara mhm. ndax seex bu la yàlla bu yàlla boo booy dox ci mbir mhm. yàlla boole la ak ay kilifa walaay day sant da bu baax lu ndax ku ñeme ku ne olof dane ku ñeme ku ne dañ laa déy waaw waaw bu yàlla dogalee nga ba jóg jotee nga jóg waaw bu jàng jotee nga dem jàngi mhm. te ñi la jàngal doo ay n'importe qui man ceex lépp mu lu ma fi wax rek maa ngi ceeg lu wér moo la génne loon samay kaagu tey nga ne ma déet man kay fiyey maam ya laa yor kay fiyey mag ñu ah, njëkk ña yoruma ay kamaatara yu gone yu bees yu ay talsam yu ñu fabriqué de ca ca kay fiyey njëkk ya mm-hmm. ci toog ci xam wàllu xam-xam macha allah moo moo xam muy xalwatu mm-hmm. moo xam muy riyaada mm-hmm. moo xam aajo joo xam ne kurus jóoni jóoni waaw ci mën a doon ci kàttanu yàlla boo ma woyee ma saafara ko bu dee xalwatu nag da la ma la wax yàgg wax rek du ma ko liggéeyal gone <laughs> mhm, mhm. ndax sarte gone mënu ko moo tax da fi dégg nit naan la man joxe na ne deux cent mille xalwa ndeysaan waaw xalwaaw quinze jours wala un mois sa journée mën ngaa am téeméeri junni mhm. léegi nga ne da nga koy duggal nit ki te war def say sarax yow war jënd say raba tay ma am na ci yoo xam ne boo koy liggéey doo lekk lu amag roo wala ay ay jën ak yi jàpp doo ko lekk ya ngay dund yaa koy xam boo bëggee nekk ñu jox na ne <laughs> maa la ko wax de. waaw léegi mhm. loolu leerut. walaay ndeysaan loolu leerut nit ki. Mhm. wax ko li nekk. waaw waaw boo ko dugal xalwa. Mhm. nga teg ko yi dugg xalwa laaj. mu la ko nga dugal ko xalwa boo ko mënut. nga xam ko ko man nga ne demal ci diw ba demee mu dugal la xalwa. mais a mos astu tax nga fen ko. waaw da ngay sóor yoon walaay da ciy baax ne ndax ndax xalootu moom waaw munta ànd ak ay fen munta ànd ak ay wor waaw ndax turu yàlla ay caaxaan da cee bokkut waaw leeral la ko moo tax man moom sama xalwatu sama reyaada dong yombut riyaada mu leer waaw ndax mm-hmm. li may tee génn sama kër ñetti fan. 30 mm-hmm. mètres. du du du du du doon lu waaye nag. Mm-hmm. ah gëb lay aajo yi. waaw ñoo ci gaaw wàllu kurus. lay ndeysaan ki koy defal bu ko xamee. waaw am na ci aajo yoo xam ne moom kurs doo nga ci man dara nag. tarkal ndax it nag ñii dañuy am ay rab ñii am nu mu demee mu diis lool waaye boo xamee sarax ba mu war def nga def ko. boo duggee xalwatu boo jaaree fa nga war a jaar saa borom mën naa jàpp na lépp waaye nag xalwatu moom kuñ ko duggal génn say mbir eh, doxut waaw te duggin wañ war a duggi ba yow nga seet sa bopp mbir du dox ci àdduna moom <laughs> ndax xalootu moom du ko dugg waaye koo ko duggal bu war naa gis changement bu fekkee ne li nga def man nga ko loolu mooy la ci am waaye xalwatu bu baax wala riyaadu bu baax wala liggéey course jóoni jóoni bu ko soxla sa tur sa turu yaay la ba <coughs> ñu toog dagg ko bu nu neexee ñu liggéey ko ñetti jotaay wala ñetti fan ñu si neex ñu liggéey ko saabaram saafara loolu ci kàttan yàlla jërëjëf sëñ Modou jërëjëf ci xam-xam bi am na solo noonu la ñuy des ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk dama koy wax de ku bëgg a tukki rek ñëwal ndax gars yi xam nañ ko baax te ñeen ñi itam am ñu jot jot jëflanteel ba gis nañ seen bopp yaakaar naa am na ñoo xam ne sax dinañ mujj màggal si ci Modou Modou yi ay suufu avion bi wàllum papier ku bëgg tukki seex tey fi may waxee yoon yi tey li fi ñëw ci ay moodu moodu yoo xam ne yoo xam ne dañoo màggal si ni suuf la toll barke Seexul Xaddim ñi ma fekk fii tey ci saal bi jox ma seen addee ni suuf la toll mm. billahi illa si la ilaha illa huwa tey ay moodu moodu yoo xam ne ñi am nañ fukki at ñi mm. euh, mm. mm-hmm. si nan ren te bu jaroon sax ma tudd tur fii ci saal bi tey dañoo mel dañ fee ñoom ah. ñëpp barke alquran seex papier mm-hmm. li ma la fi wax rek daa am tap yoo xam ne boo ci bokkee xeetu papier du yomb ci yow moo xam signature wala contrat wala extrait bu mu doon wala ndeysaan muy ba mm-hmm. oh. ñu a a wax ko la koy fànq mm-hmm. bu tak-tak amee ñu wax ko la koy dagante mm-hmm. bu ko defee rek ndax suñu borom kenn ku ne am na lu la mooñaale doxal sa mbir ak day fànq sa jafe boo ko xamee rek mën ngaa noppalu mhm. waaye ñun ci kuñ ci consulté xam li la gàllankoor ñu la defal nii mhm. ñu war cee jëflante nga ne ñu nangam nangam ngay joxe boo yow boo demee nga tëdd nelaw papier moom jéego boo ci dox saa borom ko ci kàttanu yàlla seex papier man maa koy maye gaaw ci kàttanu yàlla buñ ci déggoo mhm. man régler situation bi wax la la nga war a def liggéeyal nga am sa euh, euh, di boole doon na loo xam ne lu am solo la yaa ngi def ay résultats yu am solo mu di wàllum nopp donte damay wax saa su nekk doonut lu yomb nag waaye nag suñu borom denk na la ci sirru bu kawe macha allah. seex nopp ku la ko yombalal ku ne xamut lu bari. Mm-hmm. noobug jooni jooni amut. Ah. noobug vingt quatre heures amut. Mm-hmm. nit ak ndax mm-hmm. nit nit. du kaña du suñeel du sandax du jënax doomu aadama la <laughs> am xel yori bët ni ñëpp ñëw rek ñii yor nañ ay rab ñii ngi sangu comme ñëpp ñii am nañ kaaraange nga bëgg waaw mbir ki boo ko bëggee jàpp da nga moom ba xoox waaw moo tax nag nopp moom hmm. koo fa mu naan la dama la ko defal instant booy wax moom nii sax bu dugal sa xam ne lam lay wax du dëgg daa bëgg a lekk waaw loolu mooy li am hmm. nopp efficace faaw da ngay xam xawaatim xam xel mënu joom hmm. xam turu yàlla lu wér liggéey dagg def ci xawaatim daf ci tàpp mu mat ba hmm. la ngay liggéey nga xam ban waxtu xam ilmu dañoo xam la waxtu ngay ngay toog di ko sikkal hmm, gisuma lu ko gën a gaaw ci nopp wallaay ndeysaan rawatina xawaatim bi ñuy wax ci wàllu boole ala zaynab tarkalla xawaatim bi ñuy wax ala zaynab waaw gisuma lu ko gën a gaaw ci nopp tarkalla waaw wala mu sàllasu xaar ci wàllu boole rek waaw mu sàllasu xaar nga dagg ca la nga ca dagg def ko ba pare sarax saraxe ndawal maa sha Allah gisuma lu ko gën a gaaw ci boole tarkalla beneen bi ci dolli ko mooy mu sàllas bi ñuy wax ala Zeynab. gisuma lu ko gën a gaaw ci boole. waaw loolu li wax nag. borom xam yi moom danañ danañ comprendre danañ xam lu wér nga wax waaw te buñu déggee ne man li may wax lu ma man la nekk fii naan nangam nangam sàngam booy wax nit da wax ñu xam ne kii lii mi wax lu mu maîtrise la te li muy wax it lu am la mu sàllasu ala Zeynab ko gën a gaaw ci boole. wala mu sàllasu xaar mm-hmm. bi nga yaa xaar bi nga xam ne boo ko daggee ba defal li nga defal pare ndawal ngay saraxe toog si kar gisuma lu ko gën a gaaw ci boole moo xam ngay ngay nopp sa jëkkër mhm. wala sa jabar wala nit ku ñu la ko weex ci mhm. lu ci gën a gaaw waaw yàlla boo dem nag boo xam sax mu sàll soxa saale wala nga xam mhm. ni ñuy daggee raw xaan ci xawaatim wala xuddaam wala ko wax de bu waroon a diire bu waroon a diire ñaari fan benn fan lay doon ndax xuddaam xuddaam rawxaan a xuddaam mhm. day tax li ngay liggéey gën a gaaw ci wàllu xawaatim mhm. loolu nag ku xam xaatim moo tax may waaye ak kamatara taxut may leeral lii de kamatara sëru ñëpp kamatara xamu ci lii dara ñaan seex code la caabi la bu tijji <laughs> bu yéesee du tijji fi ne nit ñaa ngi fii rek di xëlëf xëlëf di sonn ci mbir mi moo boo xamee ko at doo sonn man am na ci ñoo xam ne ah. ba tax résultat du am la ma leen di jox foofu loolu nag kot laa ci def a daa mel ni mag war na koo fàggu baax na ci ndaw si lépp luy neexalam xel mu di kiis waaw am na ci ñoo xam ne loolu leen wax ko am na ci ñoo xam ne lu teg fàtte ko mhm. loolu lépp nag ah. am na ci xel yoo xam ne matut dañ koy mottali waaye suñu borom lépp lu mu def rek mhm. am na lu ko waral waaye alquran dara lépp lu mën a saafara ci àdduna lépp a ngi ci lépp lépp aajo boo am waaw am na aaya alquran bu cay dox lu wér am na turu yàlla bu cay dox walaay ndeysaan boo tasee kilifa nag ku ci xam dara mhm. bu la xoolee xam fa nga war a jaar mën naa jël aajo ba mhm. jël turu yàlla ba waaw waaye nag xool yow ci fan nga bokk ci lim la war a liggéey mu liggéey ko seex xanaa xamoo suñu borom hmm. daraam du asar gis nga Fatiha waaw li muy gàtt gàtt doomu aadama bu ne ci àdduna am na ci aaya bu hmm. hmm. na ci aaya bu mu bokk waaw waaye aaya booba am na turu yàlla wu mu àndal yaa ngi dégg am na turu yàlla wu mu na malaaka wu mu àndal <laughs> waaw boo xamee loolu lépp nag ngir nga jaar fa waaw mën a décanter situation nit ki hmm. xam ci li mbokk aaya yi mbiram ak yi fànqi jafe-jafe waaw loolu day dimbale ab sëriñ moo tax jàng daa wóor daa gën a wóor làmbut la ko yi ñi xam fi ko déggee dañuy xam ne kii mi ngi wax téere ñi xamul nag fi ne da ngay mel naan léebaka li ko léebak lu pen waaye ngir nga mën a décanter situation hmm. faw da ngay xam xawaatim turu yàlla loolu solo xam ilmu nujum hmm. xam lépp doog a xam liy fànq ay jafe-jafe xam sarax xam liy jàppandal mbir yëpp nit ab sëriñ da ko war a peeg bu ko defee rek mën ci lu bari waaye lu mu ci mën doon seex ñun boo ñëwee dañ war jaar ñun mën buñ la consulté rek ci jaar saa euh, mu mel ni màggal gi li ci des it bëriwut keroog def nga ci geste bu rafet mën naa ne acte bu nice ndax saa su nekk yaa ngi maye loo xam ne duñ ko jëfandikoo rek gis ci seen bopp màggal gi itam li ci desati bëreetut te yaa ngi maye lu ne nit ñi la ñu mën a sarxe la ñu mën a léemu ba mën a dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm. waaw te damay ñëw ci loo xam ne seex. Mhm. ci jëfi borom màggal gi la. wala ndeysaan. Mhm. kenn ku ne xam na ne kenn ku ne xam na ne xasida di. Mhm. Ah, waaw am lu ci sëñ Tuubaa am na lu ci sëñ ah, Tuubaa doon ñaan. ba nee nañ ku koy jàng ku bari ay noon. waaw ku bëgg am jàmm. del faral di jàng sindi koy jàng. jinne rab mhm. saytaane làmmiñ doomu aadama du mën ceew dara xam nga li ma ciy joxe tey mhm. xam nga bee passé ñëwoon naa ci kursi yi mhm. ci waxe suñu borom waaw tey juróom-ñaari sindi di laay maye ku def juróom-ñaari ayatu kursi ba pare boo ko mënee diirub li ngay ñëw ci yoon yi fexeel ba jàng sa juróom-ñaari sindi di ñaanuma ko yàlla waaye bu oto ba doon këpp yow da ngay sumbu bu dem taxaw ne maa koy may bépp jullit boo xam ne mën ngaa jàng xasida ak boo génn sa buntu ba def mhm. ayatul kursi juróom-ñaari ba pare mhm. boo toogee ci sa oto mhm. boo mënee def juróom-ñaari si ndiidi yor sa kursi wala nga yor sa téere jàng ko barke alxuraanul karim bu oto bi yi ba jëloon ci màggal gi mooy di ko waral man ab taalibe la sëñ Tuubaa laa gëm sëñ Saaliw moo ma yar ci loxoom man yaa ngi dégg waaye nag ñun sëñ mooy sunu yaakaar yoonu moom moo baaxoo noonu sëñ mun sëñ mooy sunu yaakaar tey ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool lool te mu wér. Mm-hmm. te waxoon naa leen jenn wax ci màggal ah, gi. Mm-hmm. naa dama ci ama ciy dellusiwaat ngir ñu bàyyi ko xel. waaw sëñ bu wootee kilifa gune dana ñëw ci àdduna. Mm-hmm. kilifa àdduna kilifa aada gune dana kilifa aada gune dana ñëw. waaw waaye protocole bi nga xam ne ñoo koy jege. nañ jël ay matuwaay ba kenn du ko jege. ku bokkul ci protocole bi kaaraange gi nañ ko gën a yokk. waaw ndax ku ne da koy bëgg a ñuy gàmm ak ñuy ras dem waaw danoo bokkut waaw te boot bukki ku ne mhm. xaj baw la mhm. te ñun suñu mun taxaa suñ kii la nu jaral dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér lool lool ba màggal gii nga xamante ne bii moom la woote mhm. mu woo mu àggale ay naalam ba àggale yi ay maamam naaloon yëpp dem ànd ak wér ak kattan ànd ko ak njaboot sëñ Tuubaa gépp waaye daal mhm. sécurité bi ci kër sëñ Muntaxa lu mu dolli ko doyut mhm. ndax fi ne réew mi jaxasoo na seex wax nga te adduna dafa tëradi ah, waaw te ku ne da ngay xëcc jëmale ci sa boor lu wér lu wér te loo ne amul rek mhm. neel waaw gisuma ko daal waaye buñ ne dara amut te ñun nag toll nañ foo xam ne dootuñu waxantu ci Touba gii moom lu fi waay lu fi waay indi lu fi waay indi lu lu jàmm ah. boo boo dem da nga ko delloo da lay topp <laughs> loolu moom na la leer waaw lii daal moom ñoo ngi koy baaxee ñëpp te képp koy xamante ne bi yaa ngi wàcc yoon mm-hmm. boo defee course yi ba pare mm-hmm. juróom ñaari sindi di ma maa ngi ko ciy dolli yoonu jàmm rek bu oto boo ñaanuma ko yàlla ay bu oto ba doon xalu nga yow boo faasoo ne ngay taxaw te léegi moo xam naa ci dara man damay bëgg seex man heure bu may génn mhm. nit ki booy génn da ngay amal nit ñi njariñ man ci njariñ laay dox mhm. ñu màggal si ci jàmm dellu ci jàmm damay bëgg man bu ma waxee ma waxee ku ma déglu mhm. jële ci ci njariñ waaye bëgguma nga déglu ma di dégg ay xët-xët wala nga déglu naan ay fen la man ci xam ak dëgg mhm. ak lu leer mhm. lépp lu may wax damay bëgg bu ko nit ñi déggee mhm. jariñoo ko moo tax man lépp lu may wax damay fas yéene mu am njariñ bu génn rek nit ñi jariñoo ko waaye màggal gi nañ ko bokk waajal incha allah jërëjëf kon euh, ba léegi jàll ci actualité comme ni nga ko waxee woon daa mel ni tawat yi nag bëri nañ fi mu ne nii tawat yi bëri nañ lool waaye ñu ngi ñaan saa su nekk kii di Kouthia ndax am na loo gisoon ci moom ba waxoon nga ci lan nga waxate woon ci Kouthia sax Cheikh man samay wax jalu muus la moom waxoon naa la ne la yi. nit ñu siiw ñi. nan fogaroo ci seen bopp. walaay ndeysaan saa boo xëyee dégg ko kii. te boobaak léegi bi ma ko fi waxee léegi heure boo xëyee dégg mu ne ñu ne nañ ko defal social. walaay ndeysaan fi mu toll nii tembe li xew. bari na ñu lay defal social. la xew ci yow. seen loxo génnu ci. ndax adduna moo demee noonu fi may wax ak yow nii. nit mën naa ànd ak yow te bu sañoon tey suba nga ne sërëx ci kàmm. jàpp na ne la nga yor yow boo boo boo boo dandoo moo fay toog. yaa ngi dégg jàpp na ne boo dandoo moom moo fay toog mm. li koy waral mooy ñàkk yénante jàmm xol yi nanguwut waaw moo tax doomu aadama buy dox waaw war ngaa fexe mm-hmm. di dox ci mucc ak kaaraange wala ndeysaan rawatina nga doon ku ñuy tudd waaw fexe ba mucc tey mos daa gën fi ne tël tël ji yaa fi nekk ngay dox te amoo kaaraange waaw billaa illa si man nga ànd ay nit luñ buub xëpp la ko nga dem ba ne xësëg ñu naan dañ lay ketal mm-hmm. fekk ñoo la fi jëlee <laughs> tawat yi moom waaw ci wàllu borom tur yi ñu naan ay artiste waaw Cheikh waaw bu jeboo ñu jël seeni matuwaay te fegu ndax tàmbaleegut waxoon naa la ko fi keroog. ba lay waxati nga ne ko. saa boo xëyee waaw déggaat boroomu tur yi lañ topp. te ku ci feguwut. Mhm. erreur. man man man mën a wàcc sa kaw. waaw ñu ngi waxoon naa la fi ci Kouthia. waaw ñu ngi koy ñaanal saa borom fëgg boppam. waaye waaye ay mbokkam lu ñu gën a mën a jóg ci teel nañ ko jóg. ndax daa am loo xam ne. Mhm. làmmiñ dana ko tudd waaye am loo xam ne làmmiñ du ko tudd. am na ci loo xam ne lu bari mën nañ koo foog nag. Mhm. waaye lu doon du lu ñuy béral. tarkal la ndax xam nga li tax hmm. lim doon du lu ñuy béral de waaw ndax am na ay coow yu fi amoon ci jamono yi yàgg waaw waaye nag hmm. waaw am na ci loo xam ne sëñeesu ko waaye nag lu ñu gën a mat jël ay matuwaay ci moom waaw ci wàllu ku doy nan ci jóg ndax mbir la nag lu ko mooy rek mën naa am mën naa demee neneen te conséquence bii mu nekk nii hmm. pexe doomu aadama yàlla nañu ci yàlla musal man nag bokkuma koo xam ne damay wax lu laam-laam waaw ñu koy ñaanal yàlla fëgg boppam waaye ñi nga xamante ne bii luñ xam ci ku leen doy nañ ci jóg waaw ndax ñi nga xamante ni ndax la yàlla dogal la andi loola mm-hmm. bu baax te ndaw ñi ko def bëggu tur waaw yaa ngi ci erreur lu wér nga wax incha allah ñuy wax ci làmb ji dox ci Siteu Modou Lo des na ba léegi loolu ci baaxee waat waaw Siteu Modou Lo moom bés bu set man la ma cee wax seex man làmb dama ciy xool ci mm-hmm. première ba seen jàkkaarloo rek ci laay toog xool te xam ci la ma cey xam lu bari waaye ba fii may toog di ak yow nii mm-hmm. gama kàddu gi moom laa wax gisaguma. Mhm. couronne bi nga xam ne ma nga parcelle toog. Mhm. Mhm. gone gu koy ku fay jëlee. waaw li nga bëri pexe de dugg ay pax da nga ko bari. waaye bari pax tayit xën gu jot ca. <laughs> ndax fam ne rek toog. la ko fa yóbbu bari pax ah, ko fa yóbbu. te caaxaan jëlewu ko ko fa yóbbu daal mën naa bari si tamoom na góorgóorlu rek mën naa am lu ne gone laa. mi ngi dugg fu ne nag. Mhm. ñu ngi ciy xam lu bari. mu ngi ci waa ndox mi de. waaw waaye nag daal sëñ bi. waaw kuréel bi ca parcelle moom ay caaxaan boo ko fa jëlewut. wallaay ndeysaan daal leer da ku ko fay jële daal da nga góorgóorlu. di nga pare de. ndax man Modou Lo ñaanalu ma ko man. waaye dama koo xam baax. Mhm. xam ñu sës ci moom ñu koy ñaanal ay kilifa. wallaay euh, am na yoo xam ne dépassé na ko boppam sax fi mu ne. Mhm. waaw yi ñoo ci toll. ni mënuguma ne lenn nag waaye man moom lamb lépp lu ma ciy wax mhm. danaa ci wax analyse ca fam mhm. waaye bu ñu ba ci cëppaandaw la tegtali lamb yi joxe victoire sëñ Mun Njaay moo ci yor lu wér moo ci xam dara te ñiñ ko ñiñ ñiñ ko jox tegtal mhm. ñu dem jëfe ko xam nañ ci dara dafa allah ma la ko wax waaw jërëjëf ace ñu jeexale ci président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ñoom itam fi mu ne nii itam ñooy doxal réew mi rek <laughs> saa su nekk yi boobu lu ne di nga di dégg nag waaw ku boot bukki ku ne rek xaj baw la coow ma mën naa jóge fu ne ndax Sénégal moom coolo ubbe te ah, coolo yi tëjee lijjante woo gars yi commencé fi mu ne de ma ne waaw de woo nañ ko mook Adama doom ji waaw ma ne mhm. Sénégal mhm. ci coow la tijjee ah. ci coow lay tëjee ah. te newoon naa la dossier yi mhm. ku ci jàpp ne sa bos ku ci jàpp ne sa bos raw na waaw yaa ngi ci guuta ndax xam nga li xew mooy président Ousmane Sonko dara doo ko ump ci réew mi dossier bu ne mi ngi ci teg tànkam dossier bu mu yë am nañ ci lu balaa ñu yëngal dara

feek ñuy màggal ba pare laa la wax da nga gisaat dossier yu woo teg ci table nga dégg ñu ne di woo ko man maa la wax lii lépp lu ma la wax dama ci am preuve am ci lu ma leer mhm. ñoom nag li ma leen di conseil mooy nañ doxal te bañ a gëstu liggéey moom ku koy def ku jiitu moom faaw ñu ne sa ginnaaw di la galgal ci lépp nag mhm. waaye am na ci ñooñ moom coow lañ bëgg ak ku leen tudd ak ku leen yërëm waaye jëruñoo sax gestu mënuñoo jiitu sax seen kër <laughs> bañ di leen jox réew mi loolu moom loolu moom buñ bañ ku leen am na ñuy critique ñoo xam ne ñu doxal rek incha allah jërëjëf ñu bala nga tàggatoo xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. di ñaan saa borom màggal ñu dëgmal saa borom yóbbu ñu ca jàmm mm-hmm. mm-hmm. te ca luñ ci def rek ñu tas ci ngërëmal sëñ Tuubaa di ñaanal sëñ Muntaxa Basiir mu yàgg fa loolu te wér sëñ Seex